original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew ku nekk ci réew mi xam na débiteri le mbote 1 chez Papis bu Serigne Saliou numéro téléphone am di 77 036 50 88 wala fixe ba di 33 822 13 88 ndaxte nag débiteri la mbote 1 Médina rue 11 angle 8 ñépp ko bëgg a toppandoo ñi nekk ci biir Facebook bi naan ñoom ñooy le mbote te moom moo créé markam gën fi safle dibi loolu dafa leer débiteri le mbote 1 méchoui sur commande grillade sur papier pigeon moo ci mën poulet moo ci ci mën dibi bu ñu saaf yëfam la méchoui sur commande wala possibilité vente détail débitëri la mbote un papis mu sëriñ saaliwu mi ngi nekk fii ci Médina rue 11 angle 8 dafa am ñoo xam ne dañ koy piraté naan ñoom la nekk ci Facebook bi di détourner clients yi gars yi wàcc leen la mbote bàyyi leen papis bàyyi leen papis borom méchoui borom dibi saaf numéro bi rek la am 77 036 50 88 wala 33 822 13 88 fii la safe beauté, on est ensemble. Ça bouge pas. ay ca jërë ngeen jëf mbokk bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV Naar Fall mu ngi leen nuyu di amaan mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen mbokk ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm xaar leen aljana ñu tawat yal na yàlla fëgg seen bopp ñu caabi féete ginnaaw yàlla na suñu borom génnee bañ dellu siwaat suñu biir mbokk ñu leen koy defal comme ni leen ko daan defalee saa su ne nee nañ leen fa actualité nekk rek dinañ fa dugg waxtaanee ko waaye mbokk ki nga xam ne tey ñu ngi fii ci Pikine ko ñu Afia seet si kenn ci champion koo xamante ni macha allah kenn doot ko présenté mooy kan euh, Malick Ndiaye 37 fou mu nekk koo xamante ni macha allah euh, ku ku ku ku Pikine jox cër la ku Pikine reconnaître la moo tax lu xew pikin rek faaw ñu seet si ko waxtaan ceeg moom muy Malick Ndiaye 37 fou ndax ku ne dégg na coow li nga xamante ni am na jamono ji fii ci Pikine muy coow li nga xamante ni dox na ci diggante police yi ak xale yi nga xamante ni ñoo yeewoo fii ci Pikine ñuy ñaanal ki nga xamante ni ñàkk na ci bakkanam muy Ahmed Taya sunu borom yërëm ko xaare ko aljana yi gën a kawe yàlla àtte ko ci yërmandeem keneen ki nga xamante ni mooy Cheikh Ginaar su ma juumul euh, moom it Modou Ginaar yàlla na ko yàlla defal jàmm foofu mu ne ba may ko wér génnee ko foofu ba mu dellusiwaat ci ay njabootam mbokk yi duñ def lu jox Malick Ndiaye mu nuyoo ñu waxtaan ak moom dinañ wax ak moom nag ci làmb waaye dinañ waxtaan waxtaan ak moom ci actualité bi nga xamante ni am na ci Pikine Malick Ndiaye nuyu na la la la. Ah, waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay naar maa ngi lay fay waaw maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax baax naar di siyaar waa Pikine di siyaar Pikine gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn képp kuy doomu pikin maa ngi lay siyaar naar naar wax dëgg yàlla am na lu ñu metti ñun waa Pikine ndax parce que dañoo ñàkk benn booy boo xamante ne du bandi du sàcc du naan sàngara cigarette sa du ko tox comme rang fu ma yow waaw affaire bi doon na loo xamante ne ñun doomu pikin yëpp la metti tey Pikine tey pikin man damaa kontaan ci Pikine man ci lu ñu taxaw ama taaya ñun Pikine dem ñun lii lañ xam ñun pikin boo laalee kii laal nga kële lii moo am pikin képp koo xamante ne doomu Pikine nga affaire bi metti na la te manifesté nga si affaire bi wane nga sa bopp ne lii metti na la ñun Pikine loolu lañ xam Pikine boo laalee kii laal nga kële te loolu laa gisaat Pikine te di wax waa Pikine lool affaire bi lii moo koy faj affaire bi lii moo koy faj ñun Pikine dañu soli dañoo dañoo yàgg solidarité uh-huh. bokk ndey ak baay uh-huh. boo laalee Taamara mii laal nga Malick uh-huh. boo laalee Malick Ndiaye laal nga Taamara wala boo laalee Malick Ndiaye laal nga Thié mais Pikine googu moo amoon mais Pikine googu est-ce que ba léegi moo am non Pikine googu action taay bi daa dékkiwaat loolu da daa dékkiwaat ndax parce que ñoo xamante ne gëj nga leen gis et zéné par zéné mais action bi gis nga ba mu xewee gis nga leen biir pikin lii dafa metti jàpp doomu jàmbur yaayam gaañu na papaam gaañu na maamam la dafa dese am déet du waaj tabaski bii ah ay ay ay sa tabaski day def ay opération xar di jaay ay xaram taaye xamut naan sàngara xamut tox borom baax la doon sama raq raq ju baax ma suul sama ndeg sa mbaay ñuy déggante tout le temps numéro mu ngi ni mu ngi ni sama téléphone ba léegi barke maam Serap Fall li dafa ñaaw mais tey tey boo ñu doon ñëwalaat tuuti ci ki nga xamante ni moo ñàkk bakkanam ñu koy wax ñu koy wax Ahmed Taya dafa mel ni Ahmed Taya du même Portugal Pikine parce que gis nañ action ba mu amee waa Pikine ni ñu réactionné. te muy dëgg te muy dëgg xam nga nit di nga yaakaar ne kii colossal la ba dal ci kawam nag boo nga dool dalee ci kawam ba pare ngay xam ne kii moo bëri mbokk kii nag nekkate boroomi mbokk la moo ñoom loolu moo leen dal nit kenn waru ko rey yàlla yàlla waxu ko fenn ci alxuraan. diine santaanewu ko am déet nit boo ko jàppee am boo ko jàppee même alkaati nga boo ko jàppee loo xamante ne du yoon sax da nga ko war a jël nga nga jàpp ko nga teg ko ci yoon mais waroo ko dóor waroo ko saaga ndey kër jàmbur alkaati balaa faa dugg dafa war a am mandat de production te mandat de production si si procureur lay jóge ndax parce que euh, commissaire moo koy demandé juge bu ko demandé juge juge bi tamit balaa moo demandé mandat de production da koy leer am koo xamante ne da koy leer ne kër googu noonu am na lu ñuy tere wala amul lu ñuy tere mu koy soog a bind jox ko jox ko jox ko jox ko euh, commissaire commissaire jox ko ay ay ay ay policier ñuy soog a am droit pour dëgg dugg ci kër jàmbur. macha allah mais su ma la déggee mooy ni nga waxee. mooy policiers yi lii ñu def euh, keroog. du yoon teguñu ko ci yoon. parce que waruñoo dugg kër jàmbur teguñu ko yoon kër jàmbur waroo fa dugg nit ba jël si ko fa ba yóbbu ko ba di ko rey rey rey moo ëpp. action mën nan xam ni mu demee. comme action kom nan. comme Ahmed Taya gars dañoo ñëw dañ ko doon jël si wala qu'est-ce qu'il y la moo xew. noo ñoom kafe la. kafe ga ñuy kafe ndeene fa la dëkk. moom gaanu ndeena la. moom fa lay fréquenté. mais wax ju bon fa lay lay mais fii am na ñoo xam ne boo demee ñu ne café appuyer ah, bu ñu ndog foofu la ñuy nekk di tox ay ay bon ak ay affaire nangam ak nangam mais alkaati yi bu ñu déggee loolu ba ñëw fii bu ñu fi gisul loolu mais après ñu fekk dañoo dañoo dal seen kaw dañoo dal dañoo ñëw pour dal suñu kaw fii moom yàlla baax na koñu appuyer fii moom. du benn koñ fii ku fi ñëw nar a dal ci yaa xam koo doonal yaa xam koo mënti doon doonal Zeyzane nga ñëw da nga fay da ngay ñun ñëpp ngay rey. ñun ñëpp ngay rey. koñ bi moom ku fi ñëw moom ne da ngay dal ci kaw kenn ñu ñëpp ngay rey doo rey kenn ñun ñëpp ngay rey parce que doxuñ ci lu ñàkk fayda dopp ñu luy luwaa di tere dopp ñu dopp ñu luwaa di yaa ma gën a xam dégg nga mhm. noonu la demee mhm. macha allah mais tey tey tey boo ñu doon waxal pikin tey ñu gis génn bi nga xamante ni champion yi fi nekk génn nañ wax ci ku ci mel ne Ama Baldé yaakaar naa mu ngi Europe di préparer combat am diggante ak Gris Bordeaux mais affaire bi touché ko ba mu génn def vidéo wax ci seetaan nañ tànk euh, Eumeu Sène tam moom it mu génn def vidéo méttitlu ko tey euh, ban jàngat la Malick Niang sa seetaan naa méttitlu doomu Pikine yëpp méttitlu ñu méttitlu lañ loolu uh-huh. te na sax am na ñoo xamante ne action bi rek lañ yëg moo tax ñu méttitlu loolu mais am na ñoo xam ne sax xamuñu sax kuy amat taayaa wana comprendre ko yow mais lii dafa doy waar lu mu doon doomu Pikine la dama ne la Pikine bis ni ko tey barki maam Seera Fall ku fi laalati kenn di nga laal ñëpp ku fi di nga laal ñëpp di laal ñëpp mais ñu gis action ba mu amee Pikine ñu génn taal ay oto def ay ay ay marche waaw loolu noonu taal ay oto loolu du dara dafu ñu dara mais bakkan bu ñu yóbbu nag moo gën a fort kon bu ñu wax ay taal oto ay biis bu ñu rey oto du dara du bakkan te doo gisee ñu ta booy taal oto yi taal bis yi ndax parce que bakkan bu ñu jël moo for moo waral loolu. tey boo amoon message nit ki boo koy jàppee mun nga ko jàpp siñ si ma xamala lu ma gëm man bu fekkee man alkaati laa man ñëw naa fekk leen ngeen toog dinaa ñëw sali booy na ngeen dab ça va yéen a ngi si jàmm dañuy def suñu liggéey de mais du dara ko yéen a si jàmm affaire yooyu gars ñu xool lu nekk si poos si affaire yooyu mais garaawut mais dafa am alkaati yoo xam dañoo ëppal ñoom pour ñoom sol nañ teni alkaati rek ñoom lu leen neex daf non non dëkk bi dafa am loi. dëkk dem dem am na fu ma dugg ci Pikine ñu ne. gars yi dañuy bàyyi borom kilo yi di wër borom benn juin yeeg affaire yooyu. waaw noonu la demee. dañuy c'est normal waaw ndax parce que mba borom kilo yi dañ leen di fay xaalis. dañ leen di fay xaalis. dinaa ñëw ci yéen yéen kay di ngeen. yow police boobu non non non non non non am na fi ay dealer dealer yu bari yoo xam ne dañ koy fay. ah waaw Diallo moom ci boppam. bul tudd tur waaye damaa ligganti nga naan bul tudd tur damaa ragal li may wax man la Malick Ndiaye 37 fou ñëpp xam nañ ma li may wax dama koo maîtriser man Pikine laa dëkk kon man Pikine lépp lu fiy dox man fii nii fii nii man dara ump ma am na solo am na ay dealer yoo xamante kenn di leen jàpp ñoo ngi seen yàmbaay di jaay police yi di leen fay police yi di dem si yeneen dealer di jàpp ak ñoom ay ay yàmbaay yu bëri ñëw seen dealer yooyu di leen ko jox fa lañ ko teg mais seen dealer yooyu duñ dem si ñoom di leen jàpp gaan lu ma xam Pikine bu ma ko waxee Pikine tas. am na solo Malick Ndiaye duñ doyal si moom dinañ ñëwaat ci yow parce que duñ fi ñëw ba ñibbi te waxuñu ci li nga xamante ne mooy làmb ndax ku la xam-xam la ci làmb mais duñ def lu dul jël Aliou jël gars yi ñoom it ñu wax ci seen seen seen xalaat dinañ ñëw incha allah siyaar naa la cheikh bi. siyaar naka waar bu jaamu. tur bi naka la. Thié. waaw action bi noo ko dundee ak Ahmed Taia ak ni mu ñàkkee ba. waaw Ahmed Taia loolu man dafa ma metti man la gën a metti parce que kooku maag moom bu ñuy xale jàngandoo fowandoo maagandoo defandoo lépp sa dafa am loo xamante ne nii du yoon. Ahmed Taia reyul nit du reykatu nit du ak man maa la mën a wax si moom dara wala keneen tamit mooy loolu waa koñam du jël alalu jàmbur Ahmed Taia sàngara sa bu ko laalee mu xeex ak du dem baar du dem boîte. weeru koor bi mu génn àdduna ñun ñëpp booy bu ñu tamee man sax du ma woor mais booy bu ñu tamee bay woor moom moo tax koor la xam julli jaamu yàlla mais yow ñoom ñoom bu ñu ñëwee ba def loolu bu ñu nee teg leen si table bi la moo tax ngeen xeex ak moom dóor ko moom dee lan la ñuy teg si table bi lan lañ mën a tegal juge bi ne te Diallo yàgg na am poro problème fii mën nañ ko gënal ay nit nit yoo xamante ne juge bi nekk tribunal Pikine Basirou Basirou Ndiaye xam na ñaara yoon la fa du problème bii la la am problème mais mais diggante mais ñoom nañ génnee loolu waa tribunal Pikine ñoom yàgg nañ taxaw jàllo taxaw ay nit taxaw mu am problème kon lii du benn yoon léegi koo xam ne fekk nga ko biir même boon ñu la déclaré na moom mi ngi tox nekkul si mbedd bi du tox biir kërëm même bu nekkee biir këram sax tox am fa amoo leen droit jàpp ko di koy génnee di ko yóbbu technopole di ko dóor ba koy rey pour lan koo xamante ne social maire yi ñu ngi fii si koñ bi musala maire yi ñu ngi fii kooko xam naa ko bu ñuy xale social bu muy def sax am na maire yoo xam ne ñu ngi fii ñu fal leen mosu duñ ko def ginnaaw raay nañ ma seere Pikine daaru bu mu dëkk mun nañ ma seere man damay ànd ak moom ay koñu koñ mu leen ñu jox dépasse ay maire ay niti nit moo tax tey mu demee nii jàmm gën ñëpp képp ku xam amee taaya nga génn tey a xeex manifesté wu nekk ñu dañuy manifesté wu pour jël alalu jàmm soxla wuñ ko nekkuñ dañuy def lenn loo xamante ne affaire banditisme la wala affaire saltel mais dañuy wax lu ñu metti amul lenn lu ñuy teg si table bi si kanamu juge ne kii booy bi xeex na ak ñun wala jam nañu wala def na lu tax ñu war ko rey lan la def dañ koy rey koo xam ne papam yaay gaay gën na àdduna yaayam gaañu ah mu des am maamam di jàppale waa waa mi ngi nii ay xarama ngi noonu fekk nañ ko kër ga opération man mii jaay naa ko xar tey jënd ay xar di xëy di liggéey di jàppale famem di jàppale ay magam di jàppale ay raxam amul kenn kuy taxaw si Pikine mu ne Ahmed Taye mos na jël sama fukki dërëm su amee na taxaw wala mu taxaw police wax amul kenn kuy taxaw ne Ahmed Taye mos na jàpp téemal jël sama fukki dërëm amul. mais booy rey nga jàpp malfaiteurs yi nga jàpp leen reykatu nit yi agresseurs yi nga jàpp leen rey leen ñooñu nga ko war a jàpp parce que ñoom ñooy jàpp ay nit di leen teg ay jam di xeex ak ñoom mais koo xam ne xeexul xuloowul mi ngi toog ruqam feebar te ñoom bi ñu koy dóor xamul ne kii si feebar la jóge Taye melul woon nii mais dafa feebar toog maintien toog mais lan lañ bëgg fekk la sa biir kër rey la sa famille ñëpp yaakaar si yow ñu ñëw rey ko nii si rey bu yomb boo xamante ne nii moom la kon lu ñuy teg si table bi na taaye def na ko lu tax ñu war ko rey amul kon instant lan ngeen lan ngeen di xaar ci ci ci li nga xamante ni mooy ñuy xaar xeexuñu xuloowuñu yoon na def liggéeyam comme suñu suñu suñu suñu mbër comme suñu mbër ni mu ko waxee Ama Baldé ni mu ko waxee ama lu wax maa ko mun a seere ama bu daan ñëw géej ñun ñooy yëkkati suñu xaalis su ko may mu jënd ndox taaye moomu moo doon génnee xaalis di ko lu ne ama nekk xale bu ndaw soo gisee mu def interview mu métti ko moom xam na kooku jàmbaara deretu Pikine la daw lenn loo xam ne affaire dafayan la wala kii dafa bëgg xam képp ku nekk Pikine xewle bu ñëwee bu amee fukki dërëm dina ko si def ngir Pikine am doole moo tax tey mu métti waa Pikine mais commissaire comme li Ama Baldé wax bu ñu deful seen liggéey après lu munti xew ñoom nañ xam ne loola ñun moom ñi nga xamante ne ñu ñoo foog moom màggandoo billaahi wallaahi wa taala ba ñu si policier bu ñu jàpp rey ñu parce que lu ñu doon def da amul du nëbb ñëpp xam nañ ñu furul xam nañ ñun lu ñu doon def ay jamono dañ ko def ay jamono mais bu ñu demee ba xam ne lii amul chance dañ ko jël tegee ko nële muy man di ame taay di keneen ak ñun ñoo bokk benn groupe amul kenn koy taxaw ne si Pikine bi jël na sama alal wala nii kon nañu may jàmm ñun Pikine bi lañ dëkk ñu fi dëkk ba pare naan dañuy dem feneen di wàllu yaani fi nga dëkk fa ngay ferakante mais ñoom mënuñu dëkk lan la ñu dëkk ay fu neex ñu Palfaro lu muy bëggee sénégalais ñu ñëw jàpp ñu mala soir lay ñëw fekk la nga yor xaalis sax ñu ñëw Palfaro gisuñu si yow dara ñëw na la ñu indil la coow pour nga xeex ñu xeex ak yow jël sa alal Paasulay fii lañ ko jàpp yàggul dara fii lañ ko jàppee sikk suñu sikarkat bi génneel ko ay faux billets Paasulay doxul si faux billets doxul si dara génneel ko ay faux billets na ko yaa ko moom pour lan mu dem ñu tëj ko si deux ans pour lan solo tey bu la fekkoon fii nga xulóog moom mu génnee yamba wala faux billets na la eh nañ dem pour lan yooyu amu fi loolu nag daa am ñu koy def ñun am nañ ay mboq daa am ñu koy def mi ngi doog a laal laalaaka nag. am na solo ah macha allah am na solo Aliou dégg nga kàddu yi nga xamante ni Thié wax na ko muy kàddu yi am solo. Euh, ñu seex bi siyaar naa la. Ah, ma ma lay fay. tur bi naka la. bi Taamara la. Taamara waaw. action bi noo ko dundee. action bi gars yi xam ko dundee ñu ngi koy métti nañu ko quoi ndax waa ji nii kii waa ji xool ki dañu ko initié mooy si pëli mooy si pikin bi. jàppee ko comme police mais kii ma gis kii du policier. kii criminel la bu ñu dugal si biir policier yi ndax kii soor na soor goo xam ne man mii di wax ak yow. su ma amul woon doole mu yóbbu ma foofu rey ma sunu waa koñ yi ak Pikine ñëpp mën nañ ma seede moo ma def nii. jërëjëf Aliou. man mii di wax ak yow su ma amul woon doole matuma lu ma doon mu dox daf may rey. mais sama koñ laa dee ni du ma fa jóge moo def nii sa loxo bi gis nga jàllo la affaire amul lu ñuy nëbb de xam nga sooy nëbb sax day am leen nëbbuñu dara Sénégal ak Pikine yëpp xam na ni jàllo ak xayaa moom ñoon ñoon ñoom ñoo jël si amerta ñoom ñëpp xam ne commissaire bi moo la gën a xam ne kooku di liggéeyee kooku dëmm la kooku du policier la ki ma laa soo amul doole da lay yóbbu àll ba ray la ray la nii. mais lan mooy problème ak jeune xamul luy problème am ak kenn xamul moom lan moo ko indi fii Pikine ba mu ñëw rek singili gars yi te moom ñii mu singili daa waroon laaj ñoom jara seen ñoom jara seen la waroon laaj ñi fi nekkoon ñun ñooñu ñun ay waga lañ woon de mais ñooñu ñun moo tax ñu changé ñun ñëpp ay ouvrier lañ ku ci ne fii mën nañoo seede waa léegi moom lan la bëgg dem jëlee fii ay yamba xool benn bañkat sëf la ko nga koy bi sal mu xaalis le ko pëlisé la léegi loolu ban façon policier la nit ñi ñoo wax commissaire bi xam na lépp na rek la affaire yi uh-huh. commissaire boobu xam na kuy jàlloo xam na lépp xam na élément yi demoon uh-huh. man mii di wax yow fa lañ ma bëggoon yóbbu uh-huh. ma xeex ma xeex ba dewuma boobu beneen problème la avant lii kon yàgg na léegi sax benn gannaaw bu nekk fi bu ñu naan paasu lay moom la jël yóbbu ko fii lan la ko def dóor ko ba hôpital la mujjee mais man damaa am kii dëmm la kii su lay yóbboo da lay rey nga am noonu def ak moom barki sëñ xeex ak moom ba dee te jàll moomu noonu yaboo ma xam yoon moom mun na ko dimbali def liggéey waaye ñun ñii ñun dëkk ñun ñii dëkk Pikine yaboo ñu xam ne benn policier dootuñu sonal te dootuñu rey. jërë ngeen seen benn policier dootuñu ñëwee càpp yóbbu rey déedéet mais mais léegi ñoom lan la ñuy wër ay bandi waaw ñun ay liggéeykat soo koy jëlee noo koy rey jee léegi kee muy rey ne xanaa moom jàll mooy ñëw jaay xaram yi seize xar yu góor yu tol nii yu war a opération léegi rey nañ ko léegi moom lan la bëgg. tey doon wax tuuti ci Ahmed Taya waaye déggoo la ma baax gi mu baax ak champion gi mu doon moo tax mu dee xam nga yow nga liggéey ba ba lii yow nga séddale café café pourtant loo leen joxe ndogu ne joxe ba pare léegi dugg na seen biir kër léegi policiers yi kan moo leen yónni léegi nañ lijjanti ku yónni policiers yooyu ba ñëw ray su ko xanaa dëkk bi dëkk bi dañuy dof doflu dëkk bi dañuy dof doflu xam nañ lépp lu fi ne commissaire bi moo la gën xam ni ni gars yi di joobee gars yi xam nañ lépp dofuñu waaw léegi kan moo ko yónnee commissaire bi ko yónnee kan moo ko ba mu ñu ak la lu ñu fa jàpp instant lan ngeen di xaar ci ci ci côté daal ñu ngi xaar mooy yoon def liggéeyam fexe ban ngir yàlla yàlla Diomaye Faye bi toog si kattanu yàlla première bi muy njëkk a tëj police vingt ans yàlla na tëj police Pikine yi ñoom jàlloog ñooñu ñooñu ay criminel ay dëmm lañ man mii di wax maa ngi nii la atuma jàll yaa ma bëggoon a rey sama doole ak sama fit sama jàmbaar xeexa yow ba waaye bu la ma saaga waay dëmm la kooku première chose làqat bi mu doon mënul bëgg olof. première erreur mooy foofu la ñu rayee làqat olof di ko dóor da kay rey gars xam nañ lépp jàll dañoo bëgg a dundalaat si bandi ñun bàyyi nañ bandi dañoo nekk ay booy di lii waaw sunu bandi lan la woon ay lientu mais bañ màggee ñun suñu affaire mu ñun moo ñu dimbali fii la njëkkoon toroxal mais fii neexul toroxalaate ay njara seen ay séeréel ay ñoom na laaj ñoom ñooñu ñu ñoo ñun ñooñu ñoo ñu tàggaleeg ay affaire banditisme waaye léegi Diallo lan la bëgg waa Sénégal jallo di jàpp ni ñi di leen jox yambaam di leen rey lan la bëgg. kontaan may day jàmm. nga ni. nel nel nel gars yi waay Baye Fall yi wéeroon nañu arme yëpp mais instant bi xoolal daa ruuxaat gars yi. ñu jogaat ñu jogaat. instant bi ah ñëpp la laal rey na ñu ñëpp la rey Ahmed la rey reyaane indicateurs ak ñëpp lépp la ñuy rey seen ndey. indicateurs yi Aliou xoolal nee na gars nañu reyaatee mais xoolal man la Samba Rabel borom Pikine barke Serigne Touba Mbacké ku ñu dab amul alkaati amul zemi amul oto police na na taxawaal biir Pikine rek naan day ramasse booy dina ko coûter cher. ñun ñëpp la rey nag am na taay sunu fils la sunu xarit la sunu doom la ñëpp la métti quoi parce que Serigne Touba bu ndaw comprendre nga nangoo liggéey kenn xamale ko si ñàkk fayda ñu rey si digg weeru koor gi nii yal na ko yàlla sunu borom yërëm jégal ko xaaral àjjana firdawsi ak mboolem ñu fi fekk mais policiers yi règlement de compte la de Pikine moom bum bi fi wàcc moom dan lay duñ ci boole wax ji bëri sax. am na solo macha allah Malick Ndiaye. waaw dégg nga kàddu yi nga xamante ni gars yi wax nañ ko. mais booy dañoo am lu leen métti booy dañoo am lu leen métti booy dañoo am lu leen métti taaya du bandi taaya bayfal la bayfal la ay cant kese koy génnee. ay cant moo ko mën a yëngal mais lu dul ay cant mu mënoo ko yëngal kooku Baye Fall la Baye Fall bu toll noonu nga rey ko. Mhm. gaan tamit dafa ñaaw tamit foog gars yi waaye yi waxuñu dara sax mais foog gars yi wax. macha allah am na solo. barke sëñ ñu koy ñaanal sunu borom yërëm ko xaare ko aljana yi gën a kawe moom Ahmed Taya doonoon jàmbaar macha allah nekkoon ci. waar wi di liggéey di dandoolem di dimbali ay nit di dimbali fameem di dimbali ñu bari ci biir Pikine ñu koy ñaanal li nga xamante ne doon na ko def yàlla ko suñu borom fay foofu mu nekk yàlla defal ko jàmm keneen ki lan ginaar moo di ginaar moom it yàlla noo yàlla may wér ba mu génn ak jàmm delluwaat ci ay mbokkam macha